Euh, Ababacar Gueye laa tudd mën nañ maa gisee nii ku mel ni Sambène ndaxte lu bari maa ko jàngal sama bopp li tubaab yi wax autodidacte donc j'ai fait la cuisine mais avant cela j'avais déjà des productions d'écrivains et aujourd'hui j'ai damay bind jëm ci euh, euh, làkki réew mi bind naa benn téere bu tudd jàng anglais jaare ko ci wolof te téere boobu itam am naa naataangoom boo xam ne bii anglais français la ngir ñi bëgg a jàng anglais ci dëgg-dëgg dafa fekk ne euh, bon dañuy wax ni ku magee bari sagar ci ni ko wolof di waxee donc kon euh, xam naa euh, am na lu ma yàlla dénk maanaam damay wax anglais bu baax di ko bind damay wax itam wolof moom waxi noppi mooy làmmeñ bi ma yeroo mooy sama làmmeñ bi eh, ma nàmp te gis naa itam ne am na ñu bari eh, ñoo xam ne ñi dañu def dañu mën a jàng ABCD waaye seen jàng soriwul te ñooñu ñu ngi yëngatu ci mbiri koom-koom di tukki ak di ñëw ma xalaatal ñooñu benn téere boo xam ne bii dama ko bind mu tudd jàng anglais jaare ko ci wolof waaye itam ci biir euh, mbir moomu gis naa ni am na ay xale yu bari yu am fukki at ak ñeent ba fukki at ak euh, juróom-benn yu ma doon wax waaw tonton ñun suñu wolof yi moom ay wolofu ndakaaru la ñu amee de xanaa mënu ñoo bindal benn téere boo xam ne bii nag anglais français lay nekk ñu lakkal ma ci ñu bari wax ma ko ma ne kon dinaa ko def noonu ma nekk ci di ko def te li ma jëkk na wax muy jàng téere boobu ma jëkk na wax muy jàng anglais jaare ko ci wolof ñaari jukki la jukki benn ak jukki ñaar téere boobu da ci wéeru ngir mën a jàng ale wolof maanaam wolof yi nga dégg ci la la téere bi jaarale ngir jàngal la anglais li tax téere bi tudd jàng anglais jaare ko ci wolof mais yemuma ci loolu rek damay bind itam yeneen léegi nag li ma bëgg na nam ci wax ji mooy lii li ci gën a am solo moo di naka la ñu naka naka la ñu mun a def ah, ba ah, li nga xam dañ koy jënd bitim réew moo xam ne téere yu ëmb xam-xam la moo xam ne dañ koy dundee lu tax góor góorgóorlu ñun ñi fi nekk ñii di nekk ay béykat ñii nga xam ni mooy nguur gi ñii nga xam ne ay borom xam-xam la ñu ñu jéem a gëstu di bind ay téere yoo xam ni yii euh, balaa ñuy dem di ko jënd bitim réew ñu jëndal ko suñu bopp loolu lu muy tekki day suqali ñi nga xam ne ñooy seeti sotti téere yi day suqali itam xaalis bi war na génn fii dem bitim réew des ci biir des ci biir réew mi te yaakaar naa ni loolu am solo la ndaxte bu ñu seetloo ni dañuy euh, jëfandikoo ay mbir yoo xam ni day mat téeméer. mais ñu fexe ba juróom-benn fukki yëpp ñoon ñu liggéeyal ko suñu bokk bu dee jëmee ci mbéy bu dee ci wàllu gëstu ci xam-xam bu dee wàllu ci euh, euh, gëstu ci euh, dundin nan lañ ko mën a defee lenn rek lay doon maanaam il faut dañoo war a gëm suñu bopp dañoo war a gëm suñu bopp maanaam ñi nga xam ne dañoo am xam-xam bu ñu nekk ñu jox leen xaalis ngir ñu sóobu ci liggéey boo xam ne day wone ne am na ñu mbëggeel ci réew mi teg ci itam nguur gi nga xam ne moom am na ay pexe ak ay mën-mën yoo xam ni mën naa dimbali euh, ñi nga xam ni dañuy yëngutu ci fànn yi jëm ci li ñu weesoon ci ginnaaw yi ñu doon wax ci ginnaaw man li may proposé moo di ne man ci sama ñàkk solo gii ne maa ngi ñafe ba bind fukki téere ak juróom yoo xam ni yii yëpp téere yuy jàngale la bii day jàngale togg togg li ñuy lekk Sénégal fii am naa ko juróom-ñaar fukki togg ak euh, ñett te ci juróom-ñaar fukki togg yooyu ak ñett am na ci juróom-ñeent yoo xam ne maa ko fent parce que ndaxte man dama jàng togg ba man ko liggéey ko France ubbi fii ay restaurant léegi nag maa ngi jëm si mag li ma jublu nekk ci Euh, euh, ca cinq ba léegi mooy bind kon bind naa fukki téere ak juróom yoo xam ne yii dañuy jàngale ay làkk yemuma ci wolof rek mais damay euh, lëngoo ak ñeneen yoo xam ne dégg nañu pulaar lu ma bind ci français pulaar jox leen ko ñoom ñu dindi wolof yi def ci pulaar li tax ma jublu ci loolu nag moo di ne làkk yi nekk Sénégal làkk bu ci nekk am na solo ci réew mi te làkk bu ci nekk am na ay ngëneel yu nekk ci biir yoo xam ne yi dañ ko war a toppatoo ba làkk woowu duñu ko ñàkk donc dinaa fi jaar itam pour dëgg-dëgg sant itam euh, nguurug Sénégal muy nguur yi fi yi yi yi jiitu ak yi fi nekk tey ndaxte def nañu ay jéego yu rëy waaye itam ba tey ma leen di ñaax ñu gën koo yokk rek maa ngi lay sant dina gërëm.